interpellé ci coow lu fi am ay ñu bind di wane ne man de dama bàyyi président dama dama def laa loolu danaa ci wax ndax dafa nekkul amut musta am kon ku fi kuy bind boo demee na nga bind loolu te loolu mooy li ma wax te sëñ Blaat dana woon maa ne foofu accès moo ne tux te man maa président Macky Sall laa ba ci topp mooy site bi ko bind capture nañ li mu def jox naa ko sama avocat damay porter plainte pour diffusion de fausse nouvelle ndax dafa jot ñu bàyyi gor ñi tuumaan te dinaa ko topp nag ba mu sës te su ma ko waxee ko yóbbu gëm ko dinaa ko topp ba mu sës dinaa porter plainte maa ci dossier baa ngi bi deful tur amul sant kenn xamu ko mais buñ ko joxee ñañ ko war a jox danañ ko saytu ba génne ñan la bu soob yàlla danañ ko xam ndax bii njëkkut élection législative le 31 juillet 2017 defoon na ma ko loola dama ko capturé woon denc foogoon naa ne jërul wax mu bàyyi ba ma at genn wàll mu dellu siwaat kon am na lu ko tax a jóg waaye bu soobee yàlla tey jii ko mujj a def danaa porter plainte diffusion de fausse nouvelle jox jébbal ko yoon toog nag di leen ba xam lan la yoon di def kon mbir moom moom loolu mooy déclaration mi nga xam ne moom laa ci doon am ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu nambutal ci lu baax yar la ci jàngal la ci dara mun la fab ñi ngay gis fii ñu ay nit diine fu ne doon nañ fi monde bi waaye fu ñu dem seen maxtu yeeg seen bolo gi la sol kon dara mun leen a soppi te yàlla dafa dogal ñoom ñooy ñi njiit ñooy leader yi nga xamante ne bii ñoom ñooy war a yus ñoom ñooy war a yare ñoom ñoo war a wane aw yoon kon kuy xaar ñu soppeeku foog naa ne moom fa nga xaar da nga fa yàgg te duñ soppeeku moom ci àdduna perception boobu si ñu am lu ñu tabax la ay nit ñoo ko tabax parce que dafa am loo xam dañoo bëgg ñu bàyyee leen ko ñu leen lii seen yoon nekku ci loolu nag ku ñàkk fayda wala nga doye di ba teg la foofu mais toogal ci sa ko sa problème la mais ñun liñ ci a dox danañ ko dox ndax loolu lañ fekkoon suñu wajur yi suñu référence daan ko doxee di ko def moo tax ku yàlla bind mënuñu ci génne ndax suñu cër la xam nañ ko li ñu def xam nañ ko bu wér kenn dox fenn ba fekk ñu fenn ñu mooy yàlla ku ko def génne ko nga wane ko ci internet bi li ñuy def nii fu wér la ko teg te ñii ñëw nag fekk suñu tey daf ñu gën a conforté ci position boobu ndaxte bu doon tontu jaadu duñ ci dikk te ñoom kat yàlla na nga nanguñu woon de waaye dañoo dem ba gis ne lii lu baax la lu wér la tey tam am na ñenn ci mag ñi ñoo xam nekkoon nañ ci moo tax ñu nekk si Ousmane wax léegi nee na ñëpp mënuñ cee nekk waaye faw am ñu ci nekk parce que réew mi duñu ko bàyyee ay nit ñu koy caxat caxatee di ko saax saaxee di ko yàqate ñu nekk fi am nuñ ci am nuñ ci man ñuy seetaat kooku duñu ko def seen question de responsabilité et seen une question de conscience kon loolu man foofu laa nekk te ci loolu laay dox te mooy li ma expliqué di la ko leeral l'islam dafa englobé lépp ci àdduna séparation amul ci diine l'islam loolu ci yeneen diine la am kon l'islam bàyyiwul benn domaine su doon wax ñu ne ci alxuraan bàyyiwuma dara muy bind dara ci alxuraan ca jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam kenn du xam lim bind lu mu doon ñu dem ba dox dix siècle lim bindoon science soo ko prouvé loolu day tegtale ne lépp mi ci alxuraan te lislaam mooy solution bi. kon li am solo moo di te suñu Ousmane wax léegi wax bu am solo nit ñi bañu ñu politique yenn jikko yi ci nekk am ñu ko ci dugal di ko def loolu la ñu bañ te itam wax ñu dëgg ndax jikko yi rafetul bu ngeen gisee ñun du ñu saagante du tontu du wax lu ñaaw di ci am soxla. parce que dafa am yoon woo xam ne war nañ koo wane parce que bu buñ ci tabee di ko def ni ko ñëpp defee jëru ko ndax ñoo ndax ñey def loolu ñu ko tax kon loolu ñun loolu du suñu aw yoon loolu yi nag tey jii moo lañ doon leeral indi ay borom xam yu sell muy sëriñ amo bi di jàmbaar naa tey jii ñu bari découvrir nañ ko ak oustaz Taïb Socé ak ñeneen ñi fi nekkoon kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la ñu ne loolu nañ ko jiital ci campagne bi ba delloo si xel nit ñi wàcc yenn tension yi apaiser ko ñu xam ne lu man neem aussi réew mi ñoo ko bokk xañ na xëccoo bi mun a ñàkk ñun lañ ca war def lépp danañ ko def ñaan yàlla aussi di gagné te rafet nañ ñor bu baax a baax waaye nag lépp tam nañ ko rafetal jaarale ko ci ci yoon euh, jiital ci ay jikko yu sell ay jikko yu rafet ba ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ mën a amal njariñ réew mi ni nga xam noonu lañ noonu lañ ko seexloo loolu jeex ba képp koo xam ne mën nga amal njariñ réew mi ak foo ko mën a amal njariñ rek nga dikk apporter sa contribution pour le développement du Sénégal kon loolu mooy li nga xam ne mooy la doon thème bi